بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ماغي تود مصطفى غي دي بريزيدان دي ديليغي دي كارتي دو لا كومين دو يوف ني غن ما خام سي تورو موتوفا تاي ني نييو سي انفيتاسيون و فيدراسيون بينتوم داكارو مي اند اك تشاي فون سنغال اند في اك ايمو شيف دو سيرفيس ايمو مدام جاي تود كوليت Euh, nek Grand Dakar pour mu waxtaan si njëriñool état civil si Yoff parce que ñu bare dañuy jang école ba dara dessul lu def examen buñu fa tollo fekk duñu am ay kii parce que comme xalé yeb dañ né obligation la pour ñu am droit à l'éducation donc ku siy dem rek war nañ fexé ba nga am ay kayit ñuy ñaan délégué de quartier yi nga ñoo né si réew mi ñu farlu ci lolu euh donc ma jox madame Ndiaye mu def euh, entrée en matière madame Ndiaye vous avez la parole jërëjëf délégué ma ngi lay sant di la di sant tamit euh, wa fédération Pencum Dakar yi nga xamné ñom ñoo ñu bi bo fi tay ci émission bi euh, comme ni nga ko waxee man ma tuddu madame Ndiaye Colette may chef de service bu AEMO bu Grand Dakar service AEMO nag mooy lu ñu nane service de l'action éducative en milieu ouvert Ben, ci service yi nga xamantene mom la direction de l'éducation surveillance la protection sociale mi nga xam ne moom léegi direction de la protection judiciaire et sociale di ben ci direction yi nga xamantene mom la ministère de la justice ëmb donc ñun ci lañu ñu bokk tey nag thème bi nga xamantene ne moo ñu moo ñu andi tay thème bu am solo la ndax ñepp xam nañ ni état civil moy li nga xamantene mom moy permettre nit ki mu mun am ay mun a exercer yeneen droit yi nga xamantene mom mo moo ci liyeewu ci mel ni ni ko loolu yëpp ci li nga xamante ne état civil mën na ko permettre nit ki ci la bokk. Ah, jërëjëf madame Ndiaye defe naa ne daal li nga wax moom leer na nañ xam nga ñun euh, généralement sunu mbokk yi nga xam ne dañuy dem nappi dañuy wax ne dem nappi rek dellu siwaat sa kër jarul am ay kayit te njàng. dafa ni dafa nekk loo xam ne li si gone lu war la dañ ko war a fexe mu jàng bu feebaree aussi dañu war a fexe mu faju da ngay gis xale bu jàng ba sore sore te ñooñu généralement dañuy doon ne ñoo xamante ne ñii dañuy dañuy dañuy dañuy farlu si seet jàng donc ñuy ñaan parent yi mbokk yi ñu ñu jàppale xale yi parce que xale mooy doon mag boo bëggee xam sa réewu ëllëg nan lay mel xoolal sa xale tay tey muy lu am importance madame Ndiaye nag loolu motax mu déplacer ñëw fi pour que ñu sensibiliser leen ñu wax leen euh état civil si si deuk fu mu mëntu doon donc ñu ngi ñu ngi ñu ngi euh doli ñaax délégué de quartier xamnañ ni ñu ngi seen liggéey ñu ngi def ay renforcement de capacité ñu ngi def ay séminaire ak yooyu yépp pour yokk seen xam-xam parce que lépp loo nekk rek si àddina war nga si yokk sa xam-xam comme sa boo liggéey mu mu mën la jariñ te délégué quartier dafa am dafa am dafa am njariñ si loolu ñuy wax noonu ci affaire état civil par exemple ñun ñooy dem si ngénte yi bu ñu demee si ngénte yi bu ma sañoon balaa ñu fay jóge ñu xam ndax xale bi ñuy ngénte ndax déclaré nañ ko wala déet su fekkee déclaré ñu ko bu beneen semaine dugg mukk te taxawuloo si ba ñu déclaré ko loolu mooy lu am njariñ su fekkee da nga dem si déjitam nga seet ndax déclaré nañu kii kii nga xamante ni dafa génn àddina bu ñu ko bu ñu ko kiiwee loolu lu am njariñ la ak yeneen ak yeneen carte d'identité pour fekkente ne parents yi fexe ba ñoom ndax ñu am nañ seen muy muy muy muy góor ki comme ku jigéen ki nga jàppale leen ànd ak ànd ak ñoom bu fekkee sax mënuñu dem yow mën nga dem defi déclaration bi si état civil bi nga bi moo la gën a donc madame Ndiaye maa ngi kontaan trop si sa teewaay fii parce que loolu lu am solo la lu ama am solo la pour dëkk bi. Euh, damay dellu si waat si rek li ngay wax ne que dañu war a mën a jàppale waajur yi ñu déclaré seen doom ndax article 51 du code de la famille ci alinéa 2 moom moo consacré lu jëm ci wàllu état civil. xamal nit ñi ne état civil lu am njëriñ la boole ci teg ci ne kan moo mën a déclarer xale bi ñu ne mën na doon papam mën na doon yaayam hmm. mën na doon koo xamante ne ci mbokk gi la bu jege mën na doon sax sage-femme ba nga xam ne moom mooy réewle ku jigéen ko ca hmm. biir hôpital ba mën na doon délégué de quartier bi parce que moom tamit comme ni nga ko waxee sànq moom muy imam dañuy di ñoo xamante ne ñoo gën a jege waajur yi donc ñoom ñoo gën a mën a ñaax waajur yi ci wàllum déclaration déclaration état civil ñu ne kañ la ñu war a déclarer xale bi ñu ne bu juddoo war nañ ko mën a déclaré ba ba muy am benn at yoon may na la nga mën ko déclaré déclaration bu normal maanaam jël kayitu euh, extrait de naissance wala copie carte d'identité papa mak yaayam dem ci officier d'état civil bi déclaré ko ñu jox la li nga xam ne moom mooy tuddee le volet li mooy le volet 1 parce que volet boobu boo ko yoree dafay mel ni déclaré wuloo xale bi nga xam parce que yenn xale yi da yenn saay dañ leen di déclaré mais parents yi duñu yore volet 1 boobu dañ naan ah déclaré naa sama doom nga dem ba benn diir ñu ne la ah kayit bi nga defal sa doom de baaxul mm-hmm. volet 1 boobu moo lay mën a permettre nga amaat yeneen extrait sans xale bi mu wóor ne en tout cas déclaration déclaration mu baax la. Mm-hmm. waaw mm-hmm. waaw li nga wax de lu am solo la am am am solo donc euh, euh, yaakaar naa ne ñii ñuy seetaan di ñu déglu yëpp dégg nañu lii ma madame Ndiaye wax muy lu am solo wax naa leen xale dafa am droit à l'éducation ak à la santé bu juddoo. war nañu ba ba toll si jàng war nañ ko yobbu mu jang bu fekke dafa febar war nañ ko yobbu mu faju donc ma ngi wat di di di di di di rappeler sama sama mbokk délégué de quartier yi lañu daan def rek nañ ko def ñun sax ñu ngi si benn plaidoyer bu nga xamantene bi dañu ñaan état du Sénégal ke xalé bép xalé bu juddu si si euh, maternité bala muy génn ñu def déclaration loolu ñu ngi muy plaidoyer bu nga xamante ni lu am solo la loolu dina fi dàq euh, ñàkk kayit pour xale yoo xam ne dañuy toll ci examen duñu mën a am kayit muy loo xam ne lu am solo la délégué de quartier yi nag ñu ngi def plaidoyer bi bu soobee yàlla te yaakaar nañ ne yàlla dinañ ci jàppale donc boo kii rek euh, ku juddu rek euh, bulletin de naissance obligatoire balaa ngay génn balaa ngay génn ci maternité bi balaa ñu lay bàyyi nga dem buñ la joxee certificat de naissance bi nga dem si état civil bu dee yoof xam da ngay génn si Philippe Maguilet dugg si état civil bi donc loolu matul da ngay génn fii rek dugg fii si des ñuy ñaan képp koo xamante ne kii rek yaa ngi fi yeewoo te ñii seetaan itam am na ñoo xam ne duñ ko seetaan ñu partager information bii mooy képp ku fi juddoo rek balaa muy génn sa maternité ba ñu fexe ba papa ji bu fi nekkee ak bu fi nekk bu fi nekkul mën na joxe carte d'identité ak bu fi nekkee ñu dem def déclaration xale boobu comme ça ñu fàkkal ko yoon woo xamante ne wii moom la citoyen war a am pour ëllëg. donc que ni ñuy wax état civil da lay topp ba ngay nekk xale ba ba ngay doon mag. ndax ñëpp xam nañ ne état civil boobu moo lay permettre ëllëg nga am passeport boo bëggee ubbi compte bancaire état civil boobu ba tey moom lañ lay laajte tey boo naree sëy état civil boobu daf ci am solo. ba ci wàllu ndono sax état bi daf ci am solo. Mhm. ndax gis nañ ni ñu beddi ci wàllum ndono ñu dem ci yoon ndax. papa ba jot na am nga sa këyit yow mii xam na njëriñ bu hmm. jërëjëf jërëjëf madame li nga wax moom am na solo torop torop torop parce que nee nga ne lay topp xale ba mag bu fekkente ne da nga war a am carte war a am passeport pour tukki war a war euh, lijjanti par exemple certificat d'hérédité comme sa waajur bu génnee àddina. ñu xam dañuy dajalé ki yëpp pour ñu def certificat d'identité pour mëna def ndono bi su fekkente né déclaré ñu la woon da ngay sonn rek donc déclaration naissance obligation là pour pour comme ni ni jang nek obligation pour xalé bi non la nek obligation pour parent bi pour que xalé bi bu juddoo mu déclarer ko. te ci walu yoon batay lay laay ñëwaat di état civil amee njëriñ dafa dina permettre ñu mëna toppatoo yeneen yenn droit yi nga xam ne mooy droit wu xale bi xale bi nga xamante ne par exemple da nga kaa war a liggéeyloo kayitu juddoom mën a firndeel ndax xale bi liggéey bi nga koy teg méngoo na ay atam mhm. dina permettre tamit ñu mën a teg ñi daal ñi nga xamante ne dañuy sëyloo xale yi sëy bu teel mhm. ndax kayit boobu mooy mën a firndeel ne xale bi kat sëy bi ñu ko sëyloo dafa teel ba ci sax bu waajur ak njabootam séparé woo tey dina mun a permettre ñu mën a retrouver famille bi parce que identité xale bi xam nañ ko identité du ay parents am xam nañ ko donc recherche parents yooyu day gën a yomb dina permettre itamit dina mën a itamit éviter enlèvement wu xale yi parce que tey boo yoree doomu jàmbur ñu laaj la ay këyitam ko génne yaakaar naa ne di war a mun a wax ak yoon wax ju leer ndax xale boobu dina permettre tamit ñu mun a pa teg li nga xamante ne pour éviter li nga xam ne mooy ko xale yi tamit mhm. wala adoption illicite parce que nit jël na doomu jàmbur adapté ko ci anam bo xamné ne du noonu alors xalé bi amone ko yit xeyna ci yu leer dina mëna permettre yu bari en tout cas ñu mën ko ñu mën ko fank mu baña dal dal yi nga xamné mo xalé bi état civil dafa am njëriñ parce que mom moy tax ba yenen droit yi nga xamné mom la xalé bi am yëpp comme droit à l'éducation ñu ko waxé sax droit à la santé droit à une famille yoy yëpp kayitu judd mo koy mëna may nit ki ah, li nga wax day madame madame Ndiaye kenn mënu ci tek dara wax nga dëgg da lay top goné ba mak loolu dégg gu wér a wér a la wax nga ne xale bi bu bu juddoo ba tollu ci sëy bu dee jigéen comme góor am na droit euh, certificat de mariage te bu amul këyit mënul am certificat de mariage bu fekkente ne dafa war a liggéey dañuy xool ay atam ndax li paasewul tolluwul ci atu retraite parce que am na ñoo xam ne dañuy wàññi seen at tollul ci ati atu retraite di soog a ñëw di ut ci liggéey yooyu donc lu ama am am solo la li nga wax daal kenn amul dara lu mu si teg rek lu dul di si kontaan di ñaan comme niñ ko déggee ñun ñëpp information boo ko jotee boo xamee ne bi information bu am solo la da nga koy partage doo ko denc am na ñuy suivre émission bi am na ñu ko dul suivre ña ko dul suivre lii nga capitaliser si émission bi danga koy tasaare ak ñoom defe naa loolu moo tax ñëpp jariñu kon nag madame madame Ndiaye xam naa ne euh, manatu mënatu mënatuñu si teg loo xamante ne nii moo ëpp loolu doon daal ma xamal ne man day contane na trop trop trop trop si yow surtout li nga ñëw defee ko fi si yow parce que ñun loolu lañ soxla action éducative en milieu ouvert AEMO ñun day soxla dañ ko si dëkk bi comme ni nga ko waxee rek dinañ fexé quartier bu né ñu jaar fa waxtaan ak ñoom pour sensibiliser leen pour que ñëpp ñëpp yam si niveau d'information

ñoo ñu ñu capitaliser si li ñu wax fii xam ne loolu ñu wax lii valable pour Yoff moo valable pour Ngor valable pour Wakaam moo valable pour Nord Foire Ouest Foire ak ak quartier ak jàmmalaay ak quartier yi ne fii yëpp la ko dale virage ba ba ba jàmmalaay kon ma ñu ngi lay xamal ne ñun day suñu xol sedd na buy si yow ndax li nga fi wax lu am solo la lu ama am solo euh, lu ne cër bu ne danga koy jox borom ñun daal man day sama xol sedd na buy. maa leen di yéen ñi ma may ma teew fii tey mën a waxtaan ak askan wi ndax comme ni may wax rek protection wu xale mooy li nga xam ne moom moo ñu soxal te xale bi boo ko protégé dafa mel ni nation bi yëpp nga protégé mm-hmm. xale bi bu nekkee ci jàmm waajuram nekk ci jàmm société bi yëpp tamit nekk ci jàmm mm-hmm. donc li ñu war mooy ñu fexe gën di ñaax waajur yi saa su ne ñuy gën di mun a toppatoo njaboot gi ndax njaboot gi suñu njaboot te njabootu yëpp kenn xamul ku muy gëj jëriñ mag ñi daan wax mm-hmm. donc lu ñu ci def rek lu ñu war la maa ngi leen di remercier di leen di di leen di jaajëfal ci li nga xamante ne moom mooy sama teewaay fii ak ci thème bi nga xamante dafa am solo lool. jërëjëf war kaa war a mun a vraiment ñu ngi ñaan yàlla mu delluwaat la si jàmm tànk yi fi indi woon jàmm yàlla nga delluwaat si jàmm. ndax da xëy xam naa ne teel na torop nga ñëw fii pour euh, partage sax xam-xam ak waa Yoff ñu ngi lay gërëm di la sant au nom de la commune de Yoff au nom de la collectivité Lébu de Yoff ak ñëpp ak euh, ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ne ci commune bi ñu ngi lay gërëm di la sant allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim